géero géer ñaa ngi nii daal muhammadu rasulullah abdallah baay ba mustafa amina yaayam xayrul anbiya lu waay jàpp na bee kasiira maaj li baay laay di digle ngoogu loolo di jàllu baaw dama soobu cib gol sopp ngànnaay ragal na ma li fi daane boolek rab yu bon yaak na nuy tebe ma jébbal la say mbir yow mi njàccaar ma silmaxaaw te ñextoo tureel me yaa ngi antumb wommat noo eh, wommat noo wommat noo ruu yaa ngi wommat noo baay abu sama mooy ramu jaam ñi am tumbi wommat noo تسليما على سيد الورى maam li ma mu laay leeram yi moo raw jant be salaatan wa tasliman ala sayyidil waraaw maam li ma mu laay leeram ya ñoo raw yu jant be bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil aalamiina wasalaatu wasalaam ala sayyidil mursaliina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsaan ila yawmi diini ginnaaw sante yàlla sunu borom subhaanahu wa taala ngi ñaan yàlla sunu kàddu mu may nu ñu ko ci bismillahi rahmaani rahim daane la kook alhamdulillahi rabbil alamin nu ngi julli ci xayru xalqillaahi di ñaan yàlla mu nangul nu sunug julli ci moom te payal nu ko la gën a rafet ci pay dolli leeram ak xeewalam tas na ci barkeem ñaanal way dawla islaam yi ñi ci am njéggal ak yërmande yàlla na sama borom yokk ko ñi ci amul yërmande ak njéggal yàlla na sama borom yërëm leen te jéggal leen nu ngi ñaan réew mi yàlla def fi jàmm di nuyu kilifa yi nekk ci réew mi yëpp di leen ñaanal sama boroom mi leen yan yan wii ñu yanu yàlla na leen ko woyofal te bàyyi noog ñoom ñu yàgg nu jiite ñu yàgg topp seenu ginnaaw waaye it di ñaanal sunu xalifa muy seydi muhammadul muxtaar mu seydinaa ma njoon saahibul kiram mu seydinaa limaamu sallallahu wasalam ndokkeel ko ci bis maamam wi nga xam ni moom la dëkk mal di ñaan yàlla appel bi ñu egg ci ak jàmm di ñaan sunu borom yàlla bu mu nekk sunu mujjuntalug appel yàlla nañ ko fekkaat yu bari ànd ak xalifa bi nuyu ñi ni seetaan ñëpp di jaar ci sunu xarit muntaxa mu jotal nu ko ñi nga xam ne ñu ngi nuy seetaan ñëpp. di ñaanal kër gi di jàmm ji info sama borom gën ko dëgëral te def ci xewal gu yaatoo yaatu mbokk yi ñuy waxtaan jëm ci jëmm joo xam ni dafa wax baat boo xam ni waxewu ko coobareem daf ko wax ci ndigalu boroomam bi mu koy wax ñetti fan la ginnaaw bi yaayam génne àddina muy soxna maam Kumba Ndoy mu baax ma lu jiitu loolu sang bi dafa gént moom Seydina Limaamu sallallahu alayhi wa sallam di dem tool ànd ak doomu ndijaayam mu ne ko man de dama gént benn jigéen joo xam ni wàlliyu la bu génn àddina fii ci dëkk bi waaye soxna soosu de mayam yéem na ma lool doomu ndijaay ji ni ah, mu ne ko waaw waaw soxna sii ma gént mu génn àddina fii ci dëkk bi ci yoof kooku wàlliyu bu mag la ñu teg ci mu nettali ko ko ay fan ñu teg ci ñetti fan yaayam génn àddina kon yàlla wanoon na ko génnuk àddina waajuram wu jigéen waaye gis nga ni mu ko waxe inni raaytu baariqa fi leyli mawtu imraati waliyati samami ana xayartu bi zakal mawtu yaa ajaban daan ne man day woo naa ak yéemu ci mayuk soxna soosu nga xam ni gént naa ko démb muy wàlliyu ko mag yàlla dogal bi maam Kumba Ndoye génne àddina bàyyi lay terew ci 1883 waxul a kenn lekkul naanul mbokk yi dajaloo ni waaw limaamu mi ak ngëm gi xam ci moom ak ragal yàlla gi xam ci moom mu bàyyi lekk ak naan ngir yaayam bi génn àddina ana ngëmuk maam limaamu booba xamul ni dafay waajal boppam ndekete mbir mi bi mu amee yemboo naag sunu borom wara wàcce ndogal gi ci moom ndekete bu waajuram demee rek dafay woote moo ci fanu dëju yaayam ci la maam li maamu woote aaji boo daaya da nga xam ni soxna si rob nanu ko alxames ajjuma samedi dimanche ci fajar bàyyi lay woote ca yoor yoor ba bàyyi lay woote aji boo daa yàlla kon la mu waxoon ni gént na wàlli wu jigéen wu génn àddina am na ndax mooy dem ak waajuram wu jigéen woow mbokkam yi dajaloo ni ko limaamu salaahu salaam ba danu bëgg nga wax te bàyyi tëju gi ngay tëju ak ñàkk lekk gi ñàkk naan gi nga génn wax ak nit ñi te nga xam ni sa yaay jii yàlla moo ko fi indi woon te moo ko fi jëlee te yow kat ba nga juddoo ba léegi mësul la dégg ci lu bon mësul la xam ci lu bon mësul la gis ci lu ñaaw li na xam mooy looy nekk ndaw ndaw ndaw ragal nga yàlla jaamu yàlla rek nga xam wax lu baax ak def lu baax ki xamul Seydina Limaamu salaahu salaam lii mooy seede bi nga xam ni seedeel nan ko ko lu jiitu muy wax aji boo daaya mooy ci ngëm yàlla ragal yàllam nangoo jaamu yàlla te sori lépp lu ñaaw tey wéet di wéetal boroomam bi nga xamee ni sanga bi soññ nañ ko mu wax lekk naa ndekete waxam benn kàddu la mi aajiboo daayalaahi bis bi bàyyi lay waxee moom sallallahu alayhi wasallam ndax kun kun xalaat ni rus na ko képp kuy kilifaam toog nga ak moom wéetoog moom ni ko del lekk di naan te nga génn wax ak ñii ñëw ci dëj bi mu ni tekk rek waxul waaye bi muy wax benn baat rek la wax muy aajibu daayalaahi yaah macharal insi wal jinni lan la ko tëje inni rasulullahi ilaykum woo nit ak jinne ni leen man ndawal yàlla laa ci yéen ku ne xam na ni jamono jooju ci sawu jant ci montagne yi fi nekkoon ak illi ak garab yeeg guy yeeg yu ni mel ku ne xam na ni ay jinne rek la woon mais ku ne xam na ni ba muy woote wootewul nit rek dafa woo nit ak jinne kon su amul woon dëgëraay wu dëgër su dul woon wax ji dëgg la su wéeruwul woon fu dëgër ndax ni nit ñi jóge woon pexe jàkkaarloog moom jinneeg seytaane yi tamit noonu lañ dun jëflanteeg moom te ndam rek la ci am ba léegi ni woote wee ngi fi kon yàgg na ci dund ay coona yàgg na ci dund ay metit ku ne xam na ni tey jaar na ci ay tartar yu xam ne jéggi na dayoo tey bu fekkoon ni waxtu wi may nanu dañuy jël fi mu jaar ak tubaab bi te xam naa incha allahu rabbi dinañ amaat beneen occasion boo xam ne dinañ waxtaan ak yéen ci lan moo doon problème mu tubaab bi ak Seydina Limaam sallallahu alayhi wasallam parce que lu lu wër a yitteel Sénégal la tubaab bi musul song koo xam ne dina ci am defet waaye xool sunu magu diine yi bi leen tubaab bi songee moom tubaab bi bi mu ko songee ak li xew lépp ci seen diggante ak ni mu taxawee ne tubaab bi dew ma ni mag ñi ko gëmoon bis bu ngeen demee ba gis mu génn Sénégal xam leen ni daggal leen seenu kurus te xam ni man yàlla yónneetu ma wax ji maa ko waxal sam bopp nga xam ne kon tey la fa xew ca keroog ca ak la fa xew place d'indépendance la fa xew ba sanga bi na mu waxeek na mu defee ba tey boto ba nu koy indiloon mu ni du ca yéeg ñu indilaat beneen mu yéeg ba mu nee mag ñi bu ngeen demee ba gisatu leen mawu gaal gi xam leen ni limaamu mi yàlla yónniwu ko ba nu ñëwee ba gore fala boto ba taxaw kenn xamul loon mooy paan bi tubaab ya nekk ca coono gu ne ñu daj ka ca mënuñu ko génn réew mi looloo sabab ñu wàcce woon bàyyi laay gore ba mu am fa ñetti weer te ñetti weer yi lu jiitu ñetti weer yi yeewi nan ko ñu téye taalibeem bu nuy wax maam tafsir Abdoulaye jàllo maam limaamu ni du dellu këram tànk bàyyi wunoo tafsir Abdoulaye Diallo nga gis ak yeneen i jafe-jafe yoo xam ne dund na ko ci biir wooteem bii waaye yooyu yëpp ñu ngi ciy sant yàlla ndax natt wu gën a ñëw gën a rëy gën a metti ba nga naan tey du ko rëcc ci ndigalug boromam bi mu waxe woon ci wéeru gi mu wéeru woon ci boroomam kàddu dëgg ga mu waxoon dina ko may ndam ci mbooleem koo xam ne jógoon nga pexel ko ci guddi ak bëccëg nga nangu fesal pexe gi wala nga nëbb ko foofu tamit ngay gisee ni kon dund na ay mettit yu bari te incha bu nu amaatee jotaay dina leen leeral diggante tubaab bi li sabab la ca xew ki doon dox ci diggante bi lanu fa wax ni moom mu la maam li maamu di dunde ba tax tubaab bi fekkoon ko yof taal këram ak la ca xew leeb waaye tey nga gis ni kon ñu ngi wax ak rek ci fàttali leen ni sanga bi dafa gént wàlli wu jigéen wu génn àddina ñu teg ci ñetti fan waa waajuram génn àddina muy maam kumandooy ñu teg ci ñetti fan mu wootee ajiboo daa yàllaahi muy wax ca nga xam ni moom la ko doon wax pour mu wax ko ba mu wootee ba fii mu tollu musul xaste musul xuloo musul xeexlook kenn waaye mbokk yi ngeen bàyyi xel ni dafa yàgg am ay tegtal yuy ñëw ci moom yuy wane ni am na lu war a xew ci saw jant am na ci benn benn yoo xam ni xamoon nan ni moom la am na lu war a xew ci moom am na ñoo xam ni yàlla wanoon na leen ni mbir dina xew ci sawu jant mais xamun woon kan la xamun woon fan la xamun woon nan lay demee. géero géer ñaa ngi nii daal Muhammadu Rasulullah Abdallah baay ba Mustafa Amina yaayam xayrul anbiyaa lu waay jàpp na ba